أعوذ بك من مسات سيئتني وأعوذ بك ربي أن يحضر لي من لا يلق pour nga musal ma ci buñ fekkee fi nga xamante ni mooy sama jotaay yow toogal li ñaan rek atay saa jaa ba dikk nii lañ nekkee ba ñëwoon aadul kan co almoof dee nekkal ak ñoom nii ngay muñ ba dee dikk ñoom xaaral mu doxal bi soo borom irjoon dellu ma yàlla man de maa du weddi waaye xam naa nag njuumte am na damaa may nag nga may ma retard tuuti ma def lu baax c'est trop tard rabbi irjooni nag ma delloo lu tax la ali ndax man amal ma def saaleen bu baax yàlla doo may rek ma di laa daanoo jul naa julli daanoo def lu baax ma def lu baax doo may loolu ah, yàlla ne fi ma fi ma traite li ma bàyyi woon yëpp mu bàyyi ko ma ma dem débat ko doo may loolu yàlla yàlla ne ko kàllaa mukk del innaha baatam may moo del kalimatu baat laa woo moom xaayu laa moo ko wax waaye wax rek la nag wax ju am jëriñ ah woo min wala yi nekk na seen gannaaw barsaqun baaraas mooy diggale barsax jaar seen diggante may ma dilaat déedéet bu Barça jógee Kébé yaa ngi jëm te kañ ba Louga ay damaa ko sos jarul ñaan damay ma déglaat ba kañ ilaa yawmi yub'asu bu bés bu ñu leen dékkale ci bàmmeel keroog ba muy waaj a dee ba nga xam ne dee ci des mu ñaan ne may ma keroog lañ ko commencé dóor di ko dóor ba roog a génn ñu dugal ko bàmmeel di ko dóor di ko dóor ilaa yawmi yub'asu ba ci des bu ñu dekkal ñu bàyyi saa nu fi xamul affaire ci cóor ca suuf la faraam saaba amul askan ba yoon seen diggante yow may si walla yëg sa alum yi laa yëg si yow ma si keroog ah yow askanu ah, ñoom ñangee nag ñoom ah, ndoxoo askana yéer yooyu yow foo bokk luñ bokk yu ngeen bokk yoo dégg ñuy topp doom bokk suñu la parce que am na ko xam فلا تابن ولا يوم يزل ولا يجزع لهم إلا يجزع لا يجزع بمعنى واو دوما ينوقع نسون بقنا لا إله إلا الله يلا يلا من يو اه، بكروجي يا موت يلا روح المنجي لك الحمد لله اه، بكروجي أمور لا يجزع كائنات